complexe Cheikh Ahmadul Khadim ñu ngi tegoon xeer bu njëkk bi ci le 5 décembre 2018 waaye liggéey bi ñu ngi ko tàmbali ci mois de mai 2019 boobaak léegi mat na at ci mois de mai 2020 bi te ji nag ñi nga xam ne ñoom ñooy saytu liggéey bi doon nemmeeku mboolem liggéey bi nga xam ne moo nekk ci complexe bi képp koo xam ne entreprise nga ak mboolem taalibe yi nga xam ne dañ fa sasoo liggéey kenn ku ci nekk ñu dem xool liggéey bi nga xam ne moom nga yore fan nga ci tollu muy état d' avancement travaux yi loole nag tàmbale nañ ko ci waa Touba Matériaux di benn ci entreprise yi nga xam ne ñoo yor liggéey liggéeyub complexe Cheikh Ahmadoul Khadim bi ñoom ñu war a liggéey juróom-ñeenti bâtiment mu mel ni lu ci bëree bëri sax gros bi noppi na bi ak seen ki nga xam ne moo jiitee Touba Matériaux di Abdou Lahad Ka am na loo xam ne leeral na ko ci seen tolluwaayub liggéey bañ ci jotee ak fi ñu ci jaar waaye it kenn ci ñi nga xam ne ñoo jiite liggéey Touba matério moom it ñëw na ci yenn données techniques yi maanaam li nga xam ne moo jëm ci mboolem liggéey bi nga xam ne moom la Touba Matériaux waroon a liggéey fan lañ ci toll ak lan la jot a def wa in saratu bi ilahi sallaba li jaada bi tamid rabbi al ahad bi khulhu wallahu al ahad law wa khilami fil yada wa abada la su'laqi man qadab سل الذي يبارس الله جليل سل سليل فوق كل سليل di sant Xaadim Rasuul di ñaanal Sëriñ Muntaxa Basiiru xalif général de Mouride yàlla na fi yàgg ci wér yàlla na ko yàlla may kàttan ak fan bu gudd bu mu àggalee naalam yi naal yëpp ci liggéey liggéeyam Sëriñ tubaab bi di eh, nuyu eh, ñi fi teew ñëpp ah, di nuyu Sëriñ Maam Thierno Mbacke mi nga xam ne mooy coordonnateur bi nga xam ne moo jiite euh, liggéey bi di nuyu Serigne Ahmadou Badi mi nga xam ne moo yor programme mu njàng mi yëpp di nuyu la architecte yi muy Thiaw Kandji ak Ibrahima ñaa ñi nga xam ne ñoo nekk euh, groupe architecte bi nga xam ne ñooy yor projet bi ñoo confectionné projet bi di nuyu personnel Touba matériaux bi fi nekk yëpp ak techniciens yi euh, personnel administratif bi personnel juridique bi ak communication yëpp kenn ko ci nekk maa ngi lay nuyu di leen ndokkeel ci weeru tedd wi ñu génn di leen ndokkeel ci korité feetu korité bi ñu génn di euh, wax ne rek euh, gannaaw bu nuyoo bi jàllee damay présenté tuuti rek Touba Matayo ak projet bi ci initiative xalif général des bi nga xam ne ak pëstéef bi ak décision bi nga xam ne moom la jël muy procès bi gën a rëy bi mu jàpp pour liggéeyal ko Serigne Touba ci euh, communauté mouride bi ngir àdduna bi ngir liggéey liggéey muy euh, projet boo xam ne bu ni toll bariwul ci adduna nit ku ko initier benn nit boo xam ne da koo xalaat initier ko da ne da koy def surtout di ko defal diine islaam waaye di ko defal Serigne Touba waaye di ko defal communauté mouride bi yëpp. di euh, gannaaw loolu di sant yàlla bu baax a baax ci bi mu choisir euh, Touba Matériaux bi nga xam ne moom la ko jox liggéey bi pour mu liggéey ko boole ma ak euh, ñi nga xam ne moom la ma booleet muy maam Thierno mi nga xam ne mooy coordinateur technique bi ak groupe architecte bi ko yor ñu ànd di ko liggéey ba tey jii ñu def un an parce que maa ngi signé woon contrat bi le 5 mai ñu ngi posoon premier pierre bi mois de novembre le 11 novembre 2018 ça fait signé contrat bi le 5 mai 2019 ah, ba mois de mais di dee tey mu nekk un an de réalisé boo xam ne nii ñu ngi exécuté procès bi ñu war a def ñëw maam na nag mi nga xam ne mooy coordonnateur bi mu ne nañu def bilan parcours xool un an bi lan la ñu ci def loolu moo waral defe naa ne waxtaanu tey bi moo waral moo woo quelques personnes ci presse bi taxaw nii woo groupe Astec yi ngir ñu mën a def benn évaluation bilan tiré bilan de un an. première phase bi bi ñu joxoon Touba Matériaux mu concerné neuf batiment muy institut islamique bi nga xam ne mooy trois bâtiments yi ak majalis yi bi nga xam ne deux bâtiments la. ak euh, restaurant bi ak amphi benn amphi bi de 1500 place ak rectorat bi nga xam ne mooy administratif yi fii la recteur bi war a nekk ak bibliothèque bi muy juróom-ñeenti bâtiment yooyu la ñu jox Touba Matériaux moo a nekk première phase bi nga xam ne moom lay exécuté des na nag ay yeneeni bâtiment mais yooyu ñeneen nit ñoo ko yor xam naa ne dana ñu ci ñëw mm. mais partie Touba Matériaux mooy loolu yàlla dogal na jot nañ premier plan le 19 mars muy bâtiment témoin bii ngeen taxaw la ñu jot plan yi moom lañ jot plan bi signé le contrat bi le 5 mai 2019 ba le 30 mai tey di un an donc loolu moo tax nag ñuy expliquer rek Touba Matériaux fi mu ci toll bi mu juróom-ñeenti bâtiment yi ñu ko jox ñu ngi ko def contre mi ngi def durée de travaux bi deux ans la vingt-quatre mois def nañ douze mois donc techniciens yi danañ ñëw ci détail technique bi ci pour pourcentage de réalisation bi nga xam ne def nañ ko ak li nga xam ne moo ñu dese ci délai euh, di di fas yéene rek balaa ñu 24 euh, mois yi nga xam ne mooy délai bi donc defe naa ne Touba Matériaux dana libre li nga xam ne mooy majeure partie ci li nga xam ne moom la war a liggéey. waaw actuellement nii yaa ngi xool batiment bi nga taxaw muy bâtiment témoin bi nga xam ne def na un an. tey yaakaar naa ne ñu ngi koy évaluer à quatre vingt dix quatre vingt quinze pour cent de de de des des réalisés yaakaar naa ne bii fekk deux mois danañu bu fekkee ne ñoom soxla nañ ko dana leen ko mën a libéré ñu def ci liñ ci def yeneen yëpp ñu ngi yenn yi ñu ngi ci soixante dix pour cent soixante quinze pour cent quatre vingt pour cent yaakaar naa ne détail yu technique bi donc ak pourcentage bi techniciens yi danañ ci ñëw. bu ñuy présenter entreprise bi ak taxawaayu entreprise bi ak euh, fonctionnement de entreprise bi ak capacité entreprise bi loolu techniciens yi danañ ci ñëw di leeral ko li ci ëppoon rek mooy présenter wu wax ne Touba Matériaux lii la ci yor ñi lan mooy projet bi ñana seq projet bi nan la ñuy ci sëriñ bi tànne ba ba yëkkati ko jox ko Touba matériel bi nga xam ne yàlla dogal na man maa nekk ci bopp bi groupe bi donk di ko ñaanal mu yàgg fi te wér di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaax murid yëpp ne leen donc projet bi moom mi ngi en cours li Serigne Abdoul Ahad waxoon luy dem la képp ku yeex dala dala ba waaye bëgg bëgg sëñ Tuubaa la sëñ bee ko santaane woon ñetti mbir la battale woon ne nañ ko ko defal nañ ko indi Touba dañ ko tabaxal jumaa ji dañ ko tabaxal daara ji ñaari yi jàll na bii moo ci des sëriñ bi mi ngi ci sëriñ Abdou Lahad ko sëriñ bi fas yéene ko réalisé mi ngi ci képp koo xam ne ab taalib sëñ Tuubaa nga boo xam ne bëgg nga contribuer directement ci santaanim sëriñ Tuubaa defe naa ne occasion bi bu la rawee da ko koy yéene mais dootoo ko mën a am kon nag na ci murit yi nga xam ne ñi ngi bàyyi xel sëriñ bi di bàyyi xel yittey sëñ bi di fas yéene liggéeyal sëñ Tuubaa dañ am yëg-yëg ne li sëriñ bi santaane moom li ci des ku ku ci mi ngi mel ni ba ñuy tabax jubaa ji ku ci defutoon tey loo bëgg-bëgg xanaa doo da nga ko yéene mais doo ko man benn nag bu fekkee moo des ci mbir te mbir mi nga bëgg koo yóbbante te sëñ Tuubaa kat sëñ Abdu Lahad ne woon ku ko lebal ker mu fay la guddi ku ko defal loo munul mu defal la jomm te ñun dañoo fas yéene defal ku luñ munul ngir mu fay ñu lu ñu jàmm ndax li leeral na la ci kanam ku liggéeyal sëñ Tuubaa aussi ñi ko defoon ak ñi fa jaaroon ak ñim yar ñi ci jaar ñëpp kenn ku ci nekk gis na jeexital bi mu am ci ñoom ak seen ak njaboot kon liggéeyal Sëñ Tuubaa lu mat de farataal la liggéeyal yàlla lu am solo la donc te boo ci defee defal nga diine liggéeyal nga yàlla donc liggéeyal nga Sëñ Tuubaa te Sëñ Tuubaa ku ko liggéeyal bu la fayee dana la fay te kum fay dootoo tumuraanke mukk loolu rek laa ne woon danaa ko leeral ci sama bokki taalibe yi après le directeur général de groupe bi ab taalibe laa boo xam ne dama nekk ab taalibe sëñ Tuubaa bu dëggal te fas naa liggéeyal sëñ Tuubaa loolu moo tax ma gar ci sama bakkan gar ci sama tànkab tuubé ba ni ko sëñ bi bëgg mu amee ko ne waaye satisfaire communauté mouride bépp satisfaire sénégalais yi contribuer aussi ci développement seen réew mi ba bu ëllëgee ndax li sëñ Abdou Lahad waxoon adduna kat ñett rek la nii la meloon lii la fi def fii la lii la fi def fii la nekkoon nii la mel lii la fi def gannaaw finalité bépp loolu la nag bëgg naa bu ëllëgee bu ñuy rëdd bu ñuy sa yeb laxaat ni neexoon na adduna de du dëkk jaarukaay rek la waaye boo fi jaaree fexeel ba rëdd rëdd loo xam ne ku ñëw xam ne jaaroon nga fi nag kooku nag mooy suñu idole moom la ñuy roy moom la ñuy topp ay tànkam la ñuy topp kon nag maa ngi koy digal taalibe yëpp di ñaan yàlla képp koo ci xam ne am nga ci yéene rek yal na la yàlla may kàttan ak ak wér ba nga def ko wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu euh, mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ñu ngi leen di nuyu kenn ku ne sa tur ak sa sant ah ci ndigalu ah, suñu directeur général di Abdou Lahad Ka mi nga xamante ni moom la Serigne Mountakha wóolu ba jël mbir mi teg ko ci loxoom. léegi nag fi may tàmbalee damay tàmbalee bâtiment bi nga xamante ne fa lañ njëkkal léegi muy bâtiment bi nekk ci UFR science islamique et langue arabe bâtiment boobu bâtiment la boo xamante ni mi ngi nekk 2400 mètres carrés ah, en béton rek presque man naa ni 900 euh, mètres cubes de béton mi ngi ci exactement. ci biir loolu it nag bâtiment boobu actuellement en gros œuvre on est à quatre-vingt-quinze pour cent de euh, réalisation ñi ngi ko commencé en mai deux mille dix-neuf ba tey jii mu nekk actuellement un an ah soixante euh, def nañu quatre-vingt-quinze pour cent de pour euh, de réalisation seconde œuvre bi actuellement ñoo ngi ci dix-sept pour cent muy li commencé ci carrelage électricité plomberie mais loolu li ko waral. ay contrainte la yooyu mën nañ sa dellusiwaat après parce que bâtiment boobu comme témoin la ca la ñu a approuver lépp loo xamante ni mooy seconde œuvre ba mu féete boor ñu doog a commencé euh, dem ci yeneen bâtiment yi bi ñu si jógee ñu ngi nekk actuellement toujours ci euh, UFR science islamique euh, science islamique et langue arabe suñu ginnaaw nii bâtiment bi fi nekk mooy salle d'étude bi nga xamante ni moom la ñu tuddee salle d'étude milieu salle d'étude milieu bi moom it ñu ko commencé en mai 2019 léegi mu def un an mi ngi si 90 pour cent actuellement second tour bi actuellement 7 pour cent la parce que dafay xaar euh, bâtiment témoin bi parce que bâtiment témoin bi lañ fay def foog ñu valider ko approuver ko pour ñu mën ko continuer ci yeneen bâtiment yi ci biir loolu it aussi moom it euh, mi ngi nekk 2400 euh, mètres carrés donc en réalisation comme je vous ai dit 90 pour cent UFR science islamique et langue arabe trois bâtiments yi fi nekk mi ngi nekk 7200 mètres carrés 7200 mètres carrés yooyu à ce jour après un an de travail Ah, réalisé nañ ko actuellement à quatre-vingt-quinze pour cent parce que bii nekk na quatre-vingt-dix-huit pour bii nekk quatre-vingt-dix-sept pour cent bii nekk quatre-vingt-quatorze pour cent boo ko globalisé mu jox la quatre pour cent de gros œuvres et en seconde œuvre dix-sept pour cent sept pour cent donc on actuellement on est à euh, de réalisation euh, ginnaaw bu ñu jógee foofu nag ñu dem ci majalis bi majalis bi moom ñaari bâtiment moo fa nekk ñaari bâtiment ya fa nekk nag mooy que ni. Euh, am na loo xamante ni directeur général euh, souligné nañ ko sànq parce que dañu doon wax petit bâtiment et grand bâtiment mu ni nañ ko dindi parce que petit bâtiment boo xamante ni 2400 mètres carrés ça veut dire que ça fait 300 mètres un terrain de 300 mètres nga teg ci immeuble huit étages moom mooy petit bâtiment lañ tudde fii donc muy 2400 mètres carrés 2400 mètres carrés yooyu am beneen bâtiment boo xamante ni 100 et quelques mètres linéaires la nekk 4800 mètres carrés ñaari bâtiment yi rek nekk Ah, deux 7200 mètres carrés yi réalisé nañ ko présentement à 80 euh, à 72 pour cent ñoom ñaar de gros œuvres seconde œuvre yi mën a guñ ko laal parce que UF euh, bâtiment témoin bi. validé guñu cent pour cent réalisation bi. moo tax ñu euh, mettre en œuvre euh, second mais foofu nag ci Majalis bi am na fa restaurant boo xamante ne quatre cent mètres carrés la quatre cent mètres carrés boobu actuellement liggéey nañ gros œuvre bi à cinquante pour cent charpente couverture bi nga xamante ne moo war a dem ci kaw actuellement mi ngi à l'atelier liggéey nañ ko plus ou moins à trente pour cent mais nekkul actuellement sur place. par rapport ak délai d'exécution bi ah point bi ma si souligné mooy que ni euh, Touba Matériaux toujours de par directeur général plus en dehors des contraintes de décision ou de plan terewul il a mis les bouchées dafa jël pastéefam yitteem ak léppam ah teg ko ci kanam euh, jiital euh, université bi ba nga xamante ne aujourd'hui par rapport au délai initial ah aujourd'hui les bâtiments yi njëkk a commencé ñoom ñoo fi def un an mais am na fi bâtiment yoo xam te ni six mois la def te actuellement ñi ngi si cinquante pour cent lu mel ni bibliothèque dinañ fa egsi am na bâtiment yoo xamante ni ñi ngi fi def actuellement sept mois te actuellement ñi ngi si soixante pour cent dinañ fa egsi mais instant bi ñu toll nii ak fii ñu toll nii ñi ngi toll ci institut islamique euh, euh, institut euh, islamique et langue arabe instant bi ñu toll nii fii actuellement ñetti bâtiment moo fi nekk douze mois de réalisation la ñu def sur vingt quatre mois donc des nañu un an boo xamante ni gros euh, seconde œuvre rek moo ci des te seconde œuvre bi normalement ci euh, planning bi ak plan d' yi nga xamante ni moom la ñu defoon plan d' yi nga xamante ni mooy plan d' action général yi maître d' œuvre euh, maître d' ouvrage joxe dañu wàññeeku jël plan d' action boobu planning boobu directeur général de Touba Matériaux def planning interne indi plan d' action ba pare nag ni bu ma ak gal ci délai bi nga xam te ne moom lañ ñu fixé muy 24 mois moo taxoon suñu seconde œuvre ñu ngi ko prévoir woon ci 6 mois prévoir woon grosse œuvre mois mu nekkoon 1 euh, an 4 mois au lieu de 2 ans on est à 1 an terewul ñu ngi ci ay 95 pour cent de grosses œuvres zone bi ñu nekk ah te euh, seconde œuvre ñu ngi ci 17 pour cent 17 pour cent yoo xamante ne des nañu 1 an yu ñu prévoir 6 mois ça veut dire que pour donner un délai court mooy que ni euh, jël nañu ay matuwaay. jël nañu planning bu euh, interne jël nañu ay plan d'action teg nañu logistique boo xamante ni mën nañu permettre tey tey tey tey ñu pare avant le délai euh, compact le jour et de nuit bi ñu ngi ko doon def euh, daaw heure bi ci koor gi mois de ramadan daaw dañ doon liggéey ba ay trois heures du matin quatre heures du matin instant bi ñu toll nii dafa nekk instant boo xamante ni seconde heure bi moo ëpp parce que grosse heure bi ëppoon solo parce que béton yoo xamante ni da naan dem pour euh, war a xëy benn guddi nga war a couler quatre cent mètres cubes wala trois cent mètres ci moyen yoo xamante ni dañ see sant yàlla directeur général bi parce que moo ñu indil euh, euh, centrale bi ak pompe yi ak tupp yi buru woon loolu ah kon béton yi normalement la taxoon ñu fixé woon deux ans loolu da cee bokkoon parce que ay béton la yoo xamante ni dañ ko doon prévoir di couler maximum trente ba quarante mètres cubes jour mais centrale à béton bi mu placé fii du ñàkk ngeen man fa dem central boobu moo ñu dimbali ba pare nag mu wàññeeku bu fekkoonte it nag daf ñoo bàyyi ak suñu sago amul na boo liggéey guddi bi kon ñu ko woon waaye moom ci boppam moo daan bàyyi ba 6 heures mu ñëw ah taxaw ak ñun di fi nekk ba 23 heures loolu taxoon ñu daan dem ba 2 heures du matin instant bi ñu toll nii ak couvre-feu mais dinañ liggéey au lieu de 17 heures dinañ dem ba 18 may nit ñi le temps que ñu dem mais le temps que ñu dem it dañ leen di jàppale ci dem bi parce que très souvent dañuy obligé jël ay mobilisation oto yoo xam te dina leen yóbbaale. mais tubaab matériel dafa jël dès le début benn système de euh, euh, de presse boo xamante ni c'est local boo xamante ni daf ko instauré fii jël ay moyen jox ko ubbil ko euh, internet ubbil ko it benn page Facebook boo xamee pas Facebook mais plutôt YouTube boo xamante ni dafa demander presse boobule ah que bu ñu. Euh, nañ jël seen responsabilité ci biir chantier bi bu leen kenn bundu xotaal ci dara donc ils ont la latitude et la liberté de tout expliquer parce que nee na confiance bi ko sëñ taxaa jox Mbàkke ah dafa bëgg moom ci boppam mu relater ko ci euh, ci ci liggéey bi ba nga xamante ni taalibe yi nga xamante ni kenn ñi siy joxe seen i alal ak ñi nga xamante ni ñooñu ñu bëgg wan leen lu leer parce que li ñuy liggéey instant bi ñu toll nii junj naa leen ci commencement bi ni leen am nañ fi laboratoire boo xamante ni dernière génération la laboratoire boobu kenn du fi couler béton te laboratoire boobu ñëwul saytu ko xool ko ba joxe accord am ci labo ci ci béton boobu la. kenn délai boobu la donc nag coronavirus bi ñëw na mais dafa fekk euh, gàcce ngaa laama. tubaa matériel dafa jëloon mesure yi à l'avance parce que jot naa leen ko junj ni leen daaw mi ngi doon liggéey ay guddi boobu amul woon contrainte. amul woon benn contrainte mais da doon liggéey guddi ak bëccëg loolu moo ko permettre instant bi ñu toll nii mën naa ni. Euh, li muy consommé ci corona bi wala ci euh, euh, confinement bi actuellement fekk na moom liggéey na ko auparavant donc loolu mooy li nga xamante ni moom moo dimbali Touba matériaux instant bi ñu de huit heures à dix sept ñoo ngi koy liggéey ah jël matuwaay yoo xamante ne à la place maintenant de du personnel dañ ko augmenter dañuy augmenter personnel de jour bi ba nga xamante ni mooy nécessité dootuñu am demande bi nga xamante ni parce que li nga war a liggéey ci une semaine pour cinq ouvriers ah ñu ngi koy liggéey par exemple ci trois jours pour euh, douze ouvriers wala quinze ouvriers. fii instant bi ñu toll ni bi ñu départ ñi ngi doon départ doon liggéeyee ak cent personnes ñoo fi nekkoon au départ en mai. en 2019 mais instant fii may taxaw di wax ak yow ñu ngi ci 272 personnes yoo xamante ni ñu ngi fi liggéey toute profession confondue non seulement dañ fa nekk ay euh, spécial ah dafa nekk ay spécialité sénégalais mais it aussi euh, directeur général bi dafa indi appui ah expertise u ay turc ah am na si sax ñeneen mais pour l' instant turc yi lañ mën a tudd parce que ñoom ñoo fi nekk sur place yoo xamante ni ñooy jàppale parce que euh, foofu it dinaa leen xamal ne université bi euh, l' entreprise moo ci commencé parce que fi mu nekk nii am na fi au moins douze personnes yoo xamante ni c' des nouveaux techniciens des nouveaux ingénieurs yoo xamante ni sortant la te terewul ñi ngi fii ah ñu boole leen ak ay euh, majeur yoo xamante ni ñi ngi leen di guider li may conclure nag Ah, li may conclure nag le temps que ñu dem ci beneen euh, zone parce que zone bi ñu nekk UFR science islamique et langue arabe la des na donc comme je vous ai dit majalis des na aussi administration mais li may conclure fii daal mooy di leen xamal ni daal ñun ñi ngi sant yàlla di leen sant yéen ñi it nag te bëgg ngeen jàllale message bi ba taalibe bu ne xam ni que li nga xamante ni dugg na fii def nañ ko fi ñu ko war a defee parce que ci wàllu qualité ci wàllu euh, temps ah ak ci wàllu euh, management donc ñi ngi sant yàlla di sant yonent bi di sant sëñ Muntaxa Mbàkke di leen sant yéen ñi ah wasalaam. ba léegi liggéey bi nga xam ne moom la Touba Matériaux di liggéey ci complexe Cheikh Ahmadoul Khadim bi bokk na ci amphithéâtre 1500 places bi nga xam ne moom it liggéey bi mi ngi avancé bu baax a baax biñ ci accès ki nga xam ne moo di monsieur Thiam yore liggéeyu Touba Matériaux leeral na li nga xam ne moom lañ jot a def ci amphithéâtre bi ak liggéey bi fi nga xam ne fa la toll. actuellement ñi ngi fii ci amphithéâtre bi nga xamante ni amphithéâtre 1500 places la ah pour 3600 mètres carrés couverts aujourd'hui actuellement cet amphithéâtre la boo xamante ni ñi ngi ko commencé en octobre 2019 ñi ngi ci huit mois huit mois yi ci la ñu réaliser lii ngeen gis nii actuellement donc pour un délai de deux ans ah je pense largement ak disposition yi nga xamante ni jël nañ ko fi mu nekk ni balaa ñu àgg un an et demi dinañ mën a livrer bâtiment bile bâtiment nar la boo xamante ni c'est la première fois mu am ci zone bu mel nii rawatina na sax a Dakar parce que 1500 places la nekk na place 1500 euh, places yoo xamante ni lu bari lu ñu daan def ci conférence ak ci leneen ak leneen ñu ngi ko naan def ci biti mais léegi dinañ ko mën a def fii ci biir instant bi ñu tol nii du côté avancement des travaux on est à 50 pour cent de réalisation puisque gros œuvre bi instant bi ñu toll nii. gradin yi si seen ginnaaw moom moo ci des ak euh, la partie couverte ci kaw li ci des yëpp charpente couverture la mooy fi ngeen nekk di hall bi donc euh, jël nañ matuwaay jël nañ mesures yi euh, logistique bi ñu amee instant bi ñu toll nii permettre nañu beton bi ñu mën ko réaliser à temps réel. en même temps it aussi am na isolation sonore sonore boo xamante ni dañ ko fiy def ba nga xamante ni même bu fekkonte ni dañ doon kuréel ci biir it ah ki nekk ci bunt bi du dégg ci biir dara du dégg dara. donc du gêner université bi du gêner yeneen salle de cours yi loolu c'est très important donc lu ci mel ni cérémonie officielle Magal Touba bu jotoon donc euh, bari na manifestation yoo xamante ni mën nañ ko fee def te bu boobaa dinañu jariñ ci lu bari. mbooleem kilifa yi nga xam ne ñoo doon saytu liggéey bi ci njiital Serigne Mame Thierno nombake moom Serigne Moustapha Bassirou ñëw nañ it ci bibliothèque bi nga xam ne bokk na ci liggéeyu Touba matério mu nekk bibliothèque boo xam ne liggéey bi it mu ngi dox bu baax a baax. ndax sous-sol bi daanaka noppi na loole it kenn ci technicien yi ñëwaat na leeral li nga xam ne moom mooy tolluwaayu bibliothèque bi lee fi ñu toll nii nag ñu ngi toll ci bibliothèque bi mais avant tout je me présente Ahmed Thiam directeur des travaux accompagné de mon directeur exécutif Youssou Ka et de la coordinatrice de travaux euh, madame Faye Ami donc euh, ñun ñooy euh, élément de direction yi fi nekk euh, di gouverner travaux yi été nag par la jeunesse et par les ouvriers spécifié et qualifié ak euh, le personnel turc euh, fii ñu toll di bibliothèque bi nag bibliothèque la boo xamante ni instant bi ñu toll nii mi ngi nekk euh, ñu ngi ci sous-sol bi sous-sol bii nag actuellement pare nañu fondation bi sur une surface de deux mille quatre cent mètres carrés instant bi ñu toll nii nag fondation la boo xamante ni dañ ko prévoir war na mën a yenu six ba sept étages si dimensionnement yi nga xamante ne moom lañ ko def mais pour l'instant ñu ngi ci sous bi ñu ko commencé en octobre. 2019 euh, actuellement ñu ngi ci euh, six mois de réalisation instant bi ñu toll nii nag bibliothèque la boo xamante ni sous bi kenn prévoiru fi parking ni dara dañ ko prévoir uniquement et spécialement pour euh, liggéey bi nga xamante ni sëriñ bi liggéey na ko mu nekk loo xamante ni ci biir mën nañ ko fi conserver ah des années durant te du def dara am na aussi système de protection yu ñu fi waale am na it ay système de euh, de reliure yoo xamante ni yëpp prévoir nañ ko fii ci sous bi bu ñu fi jógee nag léegi actuellement gis ngeen ko ñi ngi am 102 poteaux yoo xamante ni ay poteau rond de 80 la ak ay poteau rond de 90 am na ci pot yoo xamante ni nag dafa dañ ko intégré ci voile yi sous-sol bii ngeen gisit aussi amul benn brique ay euh, voile la béton la boo xamante ni dafay ñëw ba ci euh, plancher au RDC ginnaaw loolu nag la ñuy démarrer foofu nag dem mais instant bi ñu toll nii actuellement ñu ngi ci 40 pour cent des travaux pour 6 mois d'exécution sur un délai euh, global de vingt 24 mois réalisé ngom nañ ci 6 mois actuellement te ñu ngi ci 40 pour cent de gros œuvre seconde œuvre bi nag laalaguñ ko comme li ñu leen wax fële donc wasalaam. lii mooy tolluwaayub liggéeyub Touba matériaux ci complexe Cheikh Ahmadul Khadim bi at ginnaaw bañ ko tàmbalee ak léegi mu nekk avancement yu am solo yoo xam ne def na ko ci. boole kook liggéey boo xam ne def na ko ak qualité waaye respecté mboolem norme yi nga xam ne moom lañ teg loolee ñi nga xam ne ñoom ñoo saytu liggéey bi séeréel nañ leen ko.